mooy tàndarma ci ñor boobu mënax mooy ñor ba noppi tooy ci gàttal rek mooy dañuy bañ wenn xeet kee di joxe kee di jaay lu wow lañ koy fay nekk lu tooy bu doon ci gerte it noonu la kee joxe gerte wow kee joxe gu tooy loolu lañ koy aaye ndax ak naxante lay doon duñ xam la tooy bu demoon ba wow nu muy toll moo tax wala zabib bi du jaay du reseñ bu wow bi xine bi ca di reseñ bu tooy zabib mooy reseñ bi wow inab mooy bi tooy kenn mënu koo weccante ci jaayante mel ni nga jox ko pot ci reseñ bu wow mu jox la ñaari pot ci reseñ bu tooy dañ koy aaye ndax xamuñu la tooy moom bu wowoon nu muy toll laa mu tafaa di leen du caageen muy aji ëppante wala mislan bi mislim du caageen kem ci am kem maanaam bu ñu ko dee jaayante noonu du nangu mu ëppante du nangu mu yemoo boo ko doon jox lu wow mu lay jox lu tooy ci wenn xeet wi daal du nangu mukk ngeen defante ko moo xam di ngeen ci yemante képp moo xam dañuy ëppante ñu ko nangu ci kenn wet daal li ci teg sax moo gën gàtt wala waxtu lim du caagéenu jenn aju tooy biyaa bi suñ jëndi aji wow min jëm si ci xeetam wa min saa idi simaar yi ci mboole meññet yi wala fawaak yi ak furu yi wala nga ne payteef yi payteef muy baatu wolof bi mboolem xeeti meññet yeeg xeet doom ñu ki orange ak pom ak mandarine yooyu bu fekkee lee daa tooy lee wow rek dina mu ngeen jaayante ko bi nga xam ne du weccee waaye ndegam dañ koy weccee jaayante lañ koy tuddee su boobaa ndegam lee daa tooy lee wow rek duñ ko nangu ndax xamuñu la tooy moom boowoon nu muy toll ba tax ma naa waxoo moom mi maa bokk na ci la nga xam nu yee téléphone xam du walis ko minal Moussa ba nati ngir xamante ga mooy ngir naxante ga maanaam ak naxante da cay am ndax lee wow na xam nañ ni mu toll lee tooy na xamuñu boowoon nu muy toll maanaam bay fu maaloo mi maj foolin la loolu nag dañ ko yaayee wala yu baax deful jaay jusaafun ab jël bi ma kii njënd lu ñu nat min sin fii ca xeetam wa bu dee wenn xeet bu ñu nattee lee ba xam nu mu toll mbaa ñu peese ko duñ ko mën a jëndanteeg loo xam ne wenn xeet wi la te moom kenn nattu ko kenn peesewu ko ba tey loolu jaay lu ñu xam jënd lu ñu réere la ndax xam nga leen ko natt ba xam ko baa ñu peese ko ba xam ko nga di ko jox nag koo xam la mu lay jox dañu ko jal rek noonu jotu ñoo xam nu mu toll loolu dañ koy aaye wala jusaafun du jaageenu jaay ab jal bi jusaafin jënde ab jal min sin fii ci aw xeetam illaa an yatta bayyana ndare bu dafa bir bir mooy feeñ alfadlu gën ga baynahuma ci seen diggante alfadlu mën nga ne ëpp ga itam ëpp mën na koo firi in kaana ndem nekk na mim maa di bokk ci la nga xam ne yajuusu dana dagan ak tafaadulu ëppalante fil jins ca xeet wa alwaaxidi wa di wenn min hu ci moom dañuy bañ sax nee na ngeen weccante ñaari jal dañ koy tudde rek jaayante ñaari jal maanaam kee joxeb jal kee joxeb jal ku ne jël si jalu moroom nga xam ne kon bayhu majhoolin bi majhoolin la jaay lu ñu umpale jënd lu ñu umpale moom lay doon lay tax ñu nangu ko day mooy ñaari sart benn ba mooy wóor nañ ne jal bee mu ëpp moroom ma ñaari ba mooy xam nañ ne itam loolee ba ñu ëpplante te xam nga ne bu dee xeeti furu yi payteef yi nga xam ne kenn mënu koo denc di ko dunde ak ñi ki lujum yi yooyu xam nga nangu na ëppalante kon bu doon lu mel noonu nag moom dañ xam ne benn jàll bi moo ëpp moroom ma la muy doon doon wenn xeet wa kon du wàññi dara waaye nag bu fekkee ne mënista xàmmee ban jal mooy ci ëpp moroom ma ku nekk ci ñoom ñaar rek booy gën a muus sa moroom fexe bëgg a jël ab jalam rek mbaa boog loola di loo xam ne nanguwul ëppante waaw su boobaa kon duñ nangu ñu jaayante ñaari jal yooyu ku ne jël sa jalub moroom wala ba sa ayut bi bayyi shay ci jaay dara alxaayib li aji fàddu xala sifati ci kaw melowa maanaam manees naa jaay loo xam ne téewut ba ñuy waxaalee ka jaayante waaye dañuy sart nag fekkan ñu bokkoon ko gis ñoom ñaar mbaa boog ñu wax na mel te it dañuy bëgg ka nga xam ne mooy wax na mel bañ a doon kay jaay ndax kay jaay moom mën naa mu wax ca melo woo xam ne bëgg a jaral tax ak bëgg njëg gu bari waaye demewul noona te it loola bañ a sori lool lool buñ ko bëggee jaay jaay gu dog nga xam ne bu ñu xasee jaayante daal ku ne day dem moom day aajowoo loola bañ a sori lool lool de sax bu fekkee day jaay wu xiyaar nga xam ne buñ ko jaayee itam ki nga xam ne mooy jënd moom bu demee ba gis te bëgg a wéyal wéyal su bëggu téyeel bàyyi loola kon sori ga du ci wàññi dara wala yunqadu deeful teewal njëg nag fii ci moom bi chartin ci ab sart illa an yaqruba ndare bu dafa jege makaanu foo bérébam ba aw yàkkoona wala mu nekk mimma di bokk ci la nga xam ne yëpp na mu def na wóolu taxa yuru foo soppikoom nga min daarin moo xam day kër aw ardin wala suuf aw shajari wala ay garab fa yejoos kon dana dagan an naqdu teewal njëgg fii ci moom ci wàllu takk-takku teewal njëgg ak ñàkk teewal njëgg moom da ngay wax ne la ñuy jaay te nekku fa buñ ko dee jaayante jaayante ku dog kon moom bu fekkee ne kooku day fay ci kaw coobareem rek maanaam moom mi jënd daal fay ga muy fay ci kaw coobareem la kenn sartu ko ca kon moom dagan na fay ga muy fay ci coobareem rek bu fekkee dañoo bëgg a sart ne ko faaw da ngay fay nag moom dañuy sart loolu nekk suuf mbaa bu fekkee du suuf moom mu bañ a sori mu bañ a sori nag mooy lu war a tolloog doxam ñaari fan ci jamono yi ñu taalifi téere yi kon bu dee suuf mbaa garab ak kër yu demee noonu moom mbaa mu jege noonu ñu ko waxee daañu nangu ñu sart ne faaw dañuy fay fi saasay saasa bu fekkee nag jaayante ga nekkul jaayante gu dog dañuy jaay rek kaw xiyaar maanaam moom muy jënd bu demee ba gis ko te bëgg a wéyal am njëndam wéyal bu bëggul bàyyi kooku moom saa yu teewalee rek mooy bu fayee fi saasa rek mu daal yàqu doonte moo coobarewu teewal ga sax buy fay fi saasa rek mu yàqu kon yaar la yu bokkut bi ma waxan léegi la ñuy jaay nekku fa waaye dañoo sart ne njaay mu dog lay doon kii jënd sañuta deltu gannaaw kooka dagan na mu fay ci kaw coobareem rek nga xam ne kenn sartulu ko ne ko faaw nga fay bu dee coobareem rek moom sañ na ko bi ko bëggee sartal ne ko faaw nga fay nag moom faaw loola daa war a nekk suuf ak lu na demee mbaa bu fekkee du suuf mu bañ faa sori nga xam ne ku jógoon jëm ca ci yooyu jamono du war a weesu doxum ñaari fan nga àgg ja buñ ko dee jaayante nag ci kaw xiyaar nga xam nekkuñ jaay gu dog dañ ne buñ ko gisee rek moom mi jënd su bëggee jënd su bëggul bàyyi kooku moom bu teewaloon ci kaw coobareem sax du ko tax a baax bu ko coobaree woo teewal sax mu yàqu faaw dee aajowoo rek mu bañ a fay benn yoon bañ bañ a fay dara ba bañ ba ba mu koy gis bay wéyal ak jëndam ba tey ci kaw takk rek mën nga ne lañuy jaay te nekku fa ñetti xaaj la bu njëkk ba mooy nekku fa dañuy wax na mel rek ci buñ ko dee jaay te it njaay ga njaay gu dog lay doon mu jàppaale foofu nag ne bu fekkee lañuy jaay teew na ca fa ñuy waxaale ka jëndante te it mënees na ko ubbi gis ko te du yàqu ubbi ko yomb kon faw dañ koy ubbi gis ko waaye jaay ko rek ci wax na mu mel du doy bu naqaree ubbi gis nag ñu mën koo jaayante kon ci wax na mu mel mu daldi yam ak la fa teewut bu ñu dee sart ne faaw kii jënd day fay fa saasa kon kay wax loolee ñuy jaay na mel bu mu doon kay jaay na ko keneen wax waaye kay jaay bu mu wax na mel ndax kay jaay moom te daal di bëgg a wax melawu ëpp ndax bëgg njëg gu bari mbaa yu demee noona nde sax bu fekkee sot ñu ne kii jënd day fay fi saasa moom kon duñ bañ kay jaay wax na mel waaye ne comme jaay gu dog la te it dañoo sart ne kooku day fay fa saasa kon kay wax na mel bu mu doon kay jaay moom miy jënd ndegam dañuy wax rek li muy jënd na muy mel muy dégg na nekk ku xam loola bu baax a baax nga xam ni ñu koy melalee buñ ko waxee dana ko xam ndax mën ngaa ubbile mbir ba nga xam ne biñ koy wax na melit moom luy waxul fi yow ñooy moom luy waxul fi yow ñooyam xaaj bu njëkk bii nga xam ne mooy maa yu baaxu bi sifati xalal luso mi xam nañ koy jaay ci kaw rek wax na mel te it njaay ga njaay gu dog la kon sart yi ma la ci wax nang ko jàpp bu baax bu ca benn xët loolu ñetti xaaj yi ma la waxoon benn dong la ci ñaareel bi nag mooy la ñuy jaay te nekku fa duñ wax na mel dañuy waxaale ba juboo rek kii jënd nag dem ba gis bu demee ba gis te bëgg jënd bu bëggul bàyyi loolu mooy maa yu baaxu xalal xiyaari bir ru'yati kooku moom loola sori ak loola jege ñoo ci yemoo dong ndegam moom day dem ba gis rek bu ko jaralee bu wéy ci nañ waxaale woon ba juboo ci bu ko jaral mu bàyyi kooku moom dal nay dagan mu des nag benn ci des mooy li ñuy jaayante tundee ko fi kat moom mi jënd gisal na ko ba noppi nga xam dañu sukkandikoo ci gis gam ko njëkk la gis mooy maa yu baaxu ala ru'yatin saabiqatin kooku moom itam dagan na doonte sax dañ koy jaay jaay gu dog nga xam ne moom mi jënd suñ te deltu gannaaw te ca wàññi dara ndegam moom gisal na ko bu baax a baax xamal na mel te xam ne ni boobaa léegi moom soppiku fi kon loolu baax na wal xuxdatu xuxda xuxda wala fi waxuñu ko dara waaye benn mooy gàddu ba responsabilité jaay sat aji dagan la fi raqiix yi ci ay jaam inistour yi tat ndeem sarteef na ko aw kaanat wala mu nekk jaariyatan di aji daw mooy di aji xew bil bala di ci réew ma jamono yooyu nag moom jaam daa bari woon te bari àtte moo tax nga di ko gis ci téere yi lool lool daa wax ne buñ dee jaayante jaam li ñu wax xuxda nangu nañ ko xuxda mooy ñetti fan yi biñ ko waxee ba jaayante ko itam li nga ñetti fan yi jeex lu ci xew rek jaaykat bi moo garante jëndkat bi moom moo bëggul dara benn ñu sàrtante ko nag ca ba ñuy jaayante mbaa mu xew ca béréb booba lu ci mën doon rek su boobaa ñu daal di koy wéyal fa xuxdatu talaasi xuxday ñetti fan ab dabaanu gàddu ga fiihaa ca moom minal baaxi tukkee na ci aji jaay ja min kulli shay'in ci mépp mbir waaw nee na xuxday ñetti fan mooy ñu wane ne léegi ñu am ñetti fan gannaaw buñ jaayantee ba noppi lu ci xew rek ki doon jaay moom la ci xewal ni ki bu dee woon sax moo ñàkk waaye ki jënd moom moo magut loolu nag nee na lu ci xew yooyu jamono rek kon moom ma doon jaay moo gàddu loola ka doon jënd day mel ni moo magut waxu dëpp sanati xaw day at nag mi nga junnooni day tukkee ci ndof wal jusaami ak ngaana wal barasi ak siti xaw da jamono nañ ko yàggal ba mat at bu fekkee dañoo ragal ak ngaana feeñ ca wala ak ndof wala siti ndax daa am yoo xam ne day feeñ ci ay jamono te du feeñ ci ay jamono li ki am na ñoo xam ne seen seen ndof mi ngi leen di feeñ jamono yi ñamte ak yu demee noonu kon ndegam loolu leen ci ragal muy ak ndof mbaa ngaana mbaa siti mën naa feeñ ci ay jamono te du feeñ ci ay jamono buñ defee moo daja maanaam jiru at ba at ma dee te loolu feeñu ca ah ñu xam ne kon loolu daja amut bu ci naree feeñ kon dana feeñ ca diiru at ma kon nag buñ ci ragalee yi mën nañoo dogu ci ne buñ jaayantee ba àggal ba keroog muy am at lu ci xew rek moom mi jaay moo ñàkk waaye moom mi jënd moom yoonam nekku ca wala ba asa ayut bi salami ci salam le fil xoroo bi ci xeeti marchandise yi war raqis ak ay jaam wal xayawaani ak ndundat war taxaami ak ñam wal idaami ak randaay randaay mooy lu ñuy safale cin lu ñuy neexale ak togg bi sifatin ci aw melo maaloo mat mbir wuñ xam wa ajalin akub àpp maaloo mbir wuñ xam salam lu am solo la maanaam mooy kii jaay moom li nga bëgg amu ko waaye juboo ngeen ci njëkk sàngam nga wax ko li nga bëgg nag mu wutal la ko jox la ko ci délai sàngam kon loolu nga xam ne kon njaay la moo xam ne njëgg day jiitu la ñuy jënd fi tool yi nangu nañ nga juboo kenn ci jox ko ak njëg bi demee ba nawet bi jeex ba gerte ñor mu jox la nangam ci gerte mbaa bu dugub ñoree mu jox la nangam ci dugub mbaa bu sëb ñoree mu jox la nangam ci sëb moom daal lu man doon loo xam ne nii ki ngay waxal mën na koo am rek ngeen sàkk waxtu woo xam ne ca la war a amee mën ngeen a juboo ci njëg goo xam ne moom ko koy fay bu ci àggee nag yow da koy fay moom léegi bu ko defee moom nag bu ci àggee mu jox la ko. boo dee xool ci ñaari téere addis yi gën a wér ci téere addis yi ñëw na ca ku baax ki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne. man aslama fal yuslim fi kaylin maalumin wa wasnin maalumin ila ajalin maalumin moo tax kon ñu xam ne salam moom dara nekku ca boroom xam-xami fiq yi nag bu ñuy gëstu addis boobu di ko saraa dañuy wàññi sart ya ba mat juróom-ñaar ba ci jëkk mooy dañ daal di joxe njëgg mbaa boog luñ ko yeexe yeexe bu weesu ñetti fan ñetti fan nag moom buñ ko ko yeexee du aay doon ci sax daa sart ne bala ma la koo jox bala ma laa jox njëg gi mat ñetti fan it du wàññi dara moom benn sart ngoog ñaareel bi mooy lam koy wutali bu mu nekk jëmm ju ràññi ko joo xam ne diwa ko yore mbaa béréb sàngam la nekk déedéet lam koy wutloo day nekk lu mu gàddu ci loosam rek wuti ko ba am ko yot ko ko loolu moo tax sala mënisu ko def ci wutlu kër mbaa pàkk ndax nañ war a ràññeele bañ xam kër ga mu bëgg mbaa pàkk ba mu bëgg moom bu ñu ko defee rek mu daal di ràññe ko te dañoo bëgg salam nekk loo xam ne kooko dafa gàdd ci loosam rek wuti ko ba am ko waaye du nekk jëmm ju ñu ràññeel ñetteel ba mooy nañ ko sàkkal délai bu mu ko war a yót délai ba nag lu mu néew néew bu fekkee ne dëkk biñ ko waxantee bu juboo ca fa la ko war a joxe loola délai ba lu mu néew néew na mat genn wàllu weer marché bi ñëw fi ñëwati fi bu fekkee itam fam ko koy joxe du ci jëngi dëkk boobu waaye fam ko koy joxe daa jege dëkk ba toll ci doxub benn fan rek mbaa lu ni mel ba tey faaw rek kon na délai ba mat genn wàllu weer su fekkee nag fi mu koy fayee njëg gi ak dëkk ba mu ko war a joxe la mu koy wutloo du benn sore nañu kon duñu sart délai bi mag genn wàllu weer moom kay dañuy sart diir boo xam ne daañu mën dem ba ca dëkk boobee mu joxe ko ko foofa rek mu daal di baax ñeenteel mooy loolee mu koy wutloo na nekk luñ mën a am nga xam ne waxtu ñu wax daal moom buñ ci àggee dana mën a am bu adduna doxee nam daa doxee rek daal moom loola dana mën a am loolu mooy ñeenteel juróomeel mooy la muy wutlu nañ ko takk bu baax a baax ci bu dee lu ñu natt ñu wax na mu war a toll ci natt bu dee lu ñuy peese ñu wax na mu war a toll ci peese bu dee lu ñu wàññi mu wax na mu war a toll ci wàññi te it bépp melo boo xam ne bu ci amee dana tax loola war a seer wala loola war a yomb dañ ko ca leeral bu baax a baax ndax ndegam day fay njëg lépp luy tax njëg seer mbaa njëg war a yomb rek war nañ ko caa leeral bu baax a baax juróom benneel mooy la muy wutlu ak lañ koy wutal bu mu doon mukk xeetu ñam bu mu doon mukk itam xeetu wurus ak xaalis ndax bu doonee yaari ñam nga xam ne ñam ñam lay joxe ci njëg di wut lu ñam day mel ne kon jaay ñam jënd ñam te nekkul loxoog loxo moo tax di tax ñu wax ne it bu mu doon yaari kee maanaam bu bu mu joxe dara ci wurus mbaa xaalis te wutlu dara ci wurus mbaa xaalis loolu mooy day mel ne kon weccet wu nekkul loxoog loxo ndax xam nga ne day joxe njëg gi ñu sàkk délai buñ koy wutal la muy wutlu kon nag bu doonee yaari kee yi maanaam la muy joxe nekk xeet wurus mbaa xaalis la muy wutlu doon loola day mel ne kon weccet wu nekkut loxo ak loxo juróom-ñaareel nag mooy faaw dañuy sart la muy joxe muy njëg na wuuteeg la nga xam ne moom lay wutlu ji dañuy bañ la muy joxe muy njëg mu bokk ak xeetu la muy wutlu ji ni ki mu joxe am xar di wutlu cim xar wala mu joxe gëléem di wutlu gëléem wala mu joxe sareet di wutlu sareet mbaa mu joxe rajo di wutlu rajo moom daal faaw la muy joxe muy njëg ak la muy wutlu ji dañoo war a wuute waruñoo bokk wenn xeet lu may nag ñoo bokk wenn xeet waaye am na lu tax ñu gënante lool lool wala ñu wute ay njariñ lool lool ba nga xamee ne daanaka mënees naa wax ne bokkutuñ xeet ni ki mu joxe fasu course di wutlu fas wu ñuy takk watiir mbaa fas wu ñuy bayee ca tool ya lu mel noonu dëgg la sax ñoo bokk aw xeet waaye njariñ ya dem na ba wuute lool lool lool ba def ko lu mel yaari xeet loolu nag bari na booy jàng téere yi ci des moom daañu la andil luy tax la nekkoon wenn xeet soppiku yaari xeet ba nga mën caa salamle waaye nag téere bi téere bi tàmbali rek la foofu la ci yem wayu xajjilu te muy gaawe rësal maali capital ba waaye mooy njëgg rek aw yu axiruhoo wala mu koy yeexe ila misli yow may ni ba ci kem ñaari fan aw salaasat ni wala ñett wa in kaana ak doonte nekkoon na bi shartin ci ab sart faaw day aajowoo moom miy jënd mu daal di joxe njëgug la muy wutlu mbaa boog lu mu ko yeexe yeexe na toll ci ñaari fan ba ñett sañ na koo yeexe nag lu toll ne ñetti fan doonte sax daa waxal kooka cib sart ne ko bala ma laa jox njëg gi nu am ñetti fan koy du ko te koy du ko tee baax wa ajalu salami àppub salam ahabu li gën a sopp indi naa jëm ci nun malik añ yàkkoon mooy mu nekk xam sata xachara di fukk ak juróom yow man ci ay fan aw xalaa an yuq bata wala ci sart bu dee fi ku ngëbe bi bala duñ ci ab dëkk aaxara baneen wa in kaa wa in kaan ak doonte nekkoon na masaafatuhoo diiram ba yow may ni di ñaari fan aw salaasatun wala muy ñett daa wax ne àppub salam nanu gënal mooy na mat fukki fan ak juróom waaye axabu jooju du rek dañ lay tànnloo bu la neexee def bu la neexee bàyyi déedéet say boo jàpp li gën a wóor rek mooy bu fekkee béréb ba nga ko fayee njëgg mu war laa wutali loolee nga bëgg fa la lay joxe loolee ba tey kon dañuy sart moom àppu salam ba na mat genn wàllu weer ni ma ko waxe woon léegi bu fekkee it du ci jëmmi dëkk booba mooy du ci jëmmi béréb booba la la koy joxe waaye foofa dafa jege mëtul doxum ñaari fan maanaam fa ngeen ko waxantee ba juboo ak fam la koy joxe mëtul doxum ñaari fan dañ koy jàppee ne benn béréb kon ba tey délai ba na mat fukki fan ak juróom bu fekkee nag fam lay joxe li nga koy wutloo ak dëkk bi nga xam ne ci ngeen ko waxante woon ba juboo ca sore nañu mat na doxub ñaari fan ba mu ëpp ko kon duñ sartu deleb salam bi mat fukki fan ak juróom déedéet moom kay nañ sartu rek ab diir boo xam ne da ngeen mën a bàyyi ko fii dem foofee mu la koy joxe mu jox la ko fa te itam na nga dolli ja ngir sartante ne da ngay daal jóg da ngay daal jóg dem rek mu daal la koy jox bu ngeen ko sartante itam li ngeen ko sàtt ngeen defe ko na mooy daal jóg dem wuti béréb booba ngir mu jox la li nga ko doon wutloo tey dañuy sàrt fi ngeen di bàyyikoo ak fa ngeen jëm nga xam ne fa la la war a joxe li nga ko doon wutloo nañ mën a takk dox ba niki bu dee dañ koy war ci oto mbaa ci saxaar mbaa ci xeeti fas yeeg watiye yooyu yépp baax na ndax loolu mënees na koo takk ne foofu daal res na ko dox ci diir sàngam bu fekkoon ne ci géej la it waaye gaal ya fay dem gaal yi moteur lañu ba tey des na mën a takk diir bi gaal gi war a dox foofa waaye nag bu fekkoon ne ci ndox ngeen di aw te gaal yoo leen di yóbbu ngelaw rek moo koy ëf muy dem nga xam ne su ngelaw li baree seenub dem gaaw bu ngelaw amut mbaa ngelaw la néew seenub dox yéex lu mel noonu kon boobu sart xëtt na te it ngeen sartante ne su ngeen di àgg ci béréb boobu rek mu daal di la koy jox fa saasay saasa bu ci sart si dajee daal moom duñu ne faaw na deleb salam ba mat fukki fan ak juróom moom bu doonoon ñaari fan ba ñett ne mu ko waxee it dara nekku ca waaye nag bu benn sart ci sart yi xëttee rek moom saye boo àpp salam ba ngeen def ko fukki fan ak juróom boo xoolee saraa ba mu naa la illaa an yuqbada bi baladin ka yow may ni fala yushtaratu nisfu shahri bal yakfi an yakuna al ajalu masafata ma bayna al baladayni lakin bi shurut an yadkhula ala qabdihi bi mujarrad al wusul ila al balad wa an yakuna ala masafati yawmayni fa akthar wa an yushtarata fi alhaqdi alkhuruj fawran wa yakhruja almuslimu bilfi'li wa an yakuna safaru fi albarri aw fi albahri bighayri rihin kalmunhadirina fa in harama shartun min hadhihi fala yasihu at-ta'jilu illa bi nisfi shahri fa akthar nga seetlu ne bu ca sarte dajee bañu ne ab salam ba mën naa bañ a mat fukki fan ak juróom kon kat moom mi joxe njëg gi muy kii jënd day fay fa saasa mbaa lu mu koy yeexi yeexe bu weesu benn fan lañu waxoon ci man ko yeex ñetti fan dal nay deñ léemu ca teg nag moom bu mu soppi la nga xaman dane wa man aslama ku salamle ila salasati ayamin jëm ci ñetti fan yaqbiduhu tay dana ko ngëbe bi baladin ci ab dëkk aslama bopp salamle na fii ci moom faqad ajaasahu daganal na ko xayru waahid kurul kenn mooy lu ëpp kenn rek minal xulamaay ci way xam ñi wa karihahu te sib ko aaxaroona ñeneen nee na bu fekkee ne béréb bi nga xam ne fi ngeen wàqante salam bi ba juboo ja fala lay joxe li nga koy wutloo ji te it dele ba da ngeen koo gàttal ba toll ci ñetti fan rek ak lu demee noonu mu ne am nañu ne loola dara sikku ca ndegam rek mënees na faa am loola baax na ñenn ñu sib ko ña ko sib moom ndax sibuk araamal la wala sibuk sib rek la yem ci wax ja gën a wóor mooy lañ la waxoon rek bu fekkee ne daal dëkk bi nga xam ne ci nga ko fayee njëg gi ngeen wàqantee ko fi fa la lay joxe la nga koy wutloo ji kon faaw rek na ab salam ba mat fukki fan ak juróom bi kenn wàllu weer su fekkee ne nag beneen dëkk la lay joxe li nga koy wutloo te digganteem ak dëkk bii mat na doxub ñaari fan baa mu ëpp ko bu ca boolee sart yi ñu waxoon léegi léegi léegi kon ab salam ba du aajowoo muy mat fukki fan ak juróom ñin ko leerale woon léegi jàppal loolu nag te bañ ko wacc mooy li wóor wala yo juusul dagan ak yakkoon bu nekkee rasul mali capital ba mooy njëgg rek la jublu ci capital ba min jël sima di bokk ci xeetu la nga xam ne aslama salam le na fii ci moom wala uslima salam leef na fii ca moom ci gàttal daal wala yus na mu deful salam le shay un dara fii jën sii ci aw xeetam aw fiima wala ci loo xam ne yaqrubu dana jege minhu ci moom wax nan ko léegi ci sart yi dañuy bañ la ngay joxe muy njëg mu bokk xeetu la ngay wutlu ji dañoo war a wuute rek moom leeraloon nan nag ne su fekkee wenn xeet wala itam na njariñ ya wuute wuute ba nga xam ne daanaka doonatuñu wenn xeet kon li ngay joxe ci njëg ak la ngay wutlu ji bu mu doon wenn xeet bu mu doon tam yaar yu jege lool lool ba mel ne wenn xeet illa an yuqridahu ndare bu da koo lebal shay an dara fi mislihi ci am kemam sifatan ci aw melo wa miqdaaran ak ci ab kem wan na foo te fekk njariñ la lil mutasallifi ñeel na aji leb ja nee na boo koy jox loo xam ne ngaa bëgg bu andil la lu mel noonu ñu bokk wenn xeet kon da ngeen koy bañ a wooye salam buñ ko wooye salam rek mu yàqu kon dañ koy wooye xarab kon loo koy jox tam lay delloo si lu tol noonu rek been ko wooyee xardu te bañ ko wooyee salam mu baax waaye nag ci sartu sart ba nga waxan ci xardu am ca nga xam ne kañuy jox muy yóbbu mooy ab féete woo njariñ la waaye kay joxe moom du ci am benn njariñ bu demee noonu moom ba ci yaari ñam yi sax wala yaari kee yi buñ ko tuddee xardu mu daal di baax ndax xar du mënees na ko ci ñam ak ñam mënees na ko ci wurus ak wurus mënees na ko ci xaalis ak xaalis ndax mooy rek li nga wax kooka lor na ca loola nga abal ko mu delloo si la lu toll noona ñu yemoo képp ci tolluwaay yemoo képp ci qualité waaye kat bu doonee ñam ak ñam wala wurus ak wurus mbaa xaalis ak xaalis mbaa sax xaalis ak wurus ñu safaanoo lu mu ci mën doon rek buñ ko wooyee xard lay door a dagan waaye buñ ko tuddee jaayante wala ñu tuddé ko salam wala ñu baña wax dara dara dara mu daldi yaqku tax day melne kon bu dé yaari ñam yi day doon jaay ñam jënd ñam te nekkut loxo ak loxo bu dé yaari kee yi muy wuru sa xaalis day melne kon wéccu bo xam nekkut loxo ak loxo